waaye mais sañse bi sama jabar ju baax a ma ko sañseel dama ne ko damay dem open press ba rek mu ne ma loo bëgg a ma ne ko euh, orange noir mu tànnal baax jox ma ma sañse mais tuddee naa la ko wat bi mooy Modou Lo moo ñu boole Modou Lo moo ñu boole parce que Serigne Touba kenn du ko liggéey mais yéen it yàlla ngeen fi yàgg loolu yéen lambay ñaaw de